honorable député ci assemblée nationale di nuyu waa Sénégal set yëpp waaw di jaale waat nag encore une mbokk yooyu faatu foofu ca Mbuur di ñaan mm-hmm. yàlla yàlla xare leen ci àjjana yi gën a kawe amiin ñaan yàlla lu mel ni këj ci réew ndax lu mën a xew nag jël gaal gi moom di dem tukki du solution mm-hmm. kon nañ toog ci réew mi te jéem koo lijjanti te yàlla xam ne ne Sénégal lépp a ngi fi ay mm-hmm. njiitu jub lañ manqué woon te yàlla dénk nañu kon nañ leen encadré ñaanal leen yàlla yàlla leen te jàpp ne fi ñu jëmee réew mu soobee yàlla dañ fa yegg. incha allah suñu émission bi Touba lañ koy defee Mbacke wala Dakar fi non boo ko <laughs> sama sama la. sa la jërëjëf Serigne Cheikh Thioro <laughs> sama mbokkum Sall Touba waaye sama mbokk sama Serigne la jërëjëf ah, ma koy jaajëfal baax a baax moom moo doon àddu ci ci waxu gi si Sy euh, ma ñëw ci yow euh, pour pour laaj la peut-être déjà moom mu ngi koy wax maa ngi ko doon laaj tey gi saa wolof euh, selon yow. lan mooy attente yi ci ci wàllu élection anticipée yi ñu war a jëm 17 novembre ndax yaakaar nga itam euh, pouvoir en place dina parvenir obtenir majorité parlementaire bi nga xamante ne nii yàgg na ko espérer. waaw mën na yomb mais tamit mën na jafe de. waaw xam nga euh, pour la qualité du débat euh, Abdou Mbow Abdou Mbow c'est ça qui s'appelle sa journaliste bi waroon ñëw tuddati sax. Ablaye Mbow Ablaye Mbow Ablaye Mbow voilà ama Ablaye Mbow devait venir waaw Ablaye Abdou euh, Sawaraf moom il est dans le art projet c'est clair Jante euh, maam très bien Jante moom ak ñii absolument ñii ñoo ñu wéttali woon ci plateau bu njëkk bi absolument léegi Jante ñoo bokk camp Euh, Ndiassé la mënul situer. kenn xamul fu mu mais je sais qu'il est euh, je ne je ne dirais pas ki est pour mais en tout cas il n'est pas contre <laughs> donc ce qui fait que pour que. justification bi maa ngi koy suivre. maa lay suivre bu baax donc euh, pour ne pas. te boo xoolee avant ngay ñëw. ma j'étais que. ñu bàyyi Sonko mu def politique yi général ba pare après ñu tas ko ko war pour ñële ba ñu am argument absolument tu vois après sax man loolu laa doon wax au cas comme naan tout à fait parce que léegi nag bon après tu as prolongé wax programme d'ici voilà. décembre yëpp maa ngi suivre absolument et donc xam nga pour que le le débat ne tire pas seulement dans un sens mm -hmm. pour devenir un monologue donc je me vois un peu le devoir en tant qu'ancien journaliste de de challenger les uns et les autres <laughs> euh, même si on est dans la même perspective mhm. ensemble euh, d'abord euh, déclaration bi dafay tontu benn tontu ci jiixi jaaxa ak laaj bu nit ñi doon laaj. Mhm. mooy euh, qu'en est-il des relations entre le président et le premier ministre. ñenn ci opposition bi. Mhm. bëggoon nañoo yàq xel. bay expliquer donc le fait que euh, le président ñëw confirmer dëggal le premier ministre daf lay wax ni les relations sont bu beau fixe. Mm. tey jii bu. premier ministre waxoon lii président ñëw wax lale euh, da ngay gis ñu bëri mën nañ cee burux ndóol wax ni euh, ce n'est plus l'entente cordiale mm. mais tey président ñëw defe ko ni ko premier ministre annoncé woon euh, au moment où ñu jaayoon le ticket le ticket Sonko mooy Diomaye mm. kon donc au day révéler que y amul benn nuage amul benn problème ci seen diggante tey nañu gën a mën a déggoo maintenant euh, Gramsci Antonio Gramsci euh, disait que je suis pessimiste par intelligence mais je suis optimiste par volonté et je voulais parler du risque politique en fait euh, effectivement mën na élection yi régime bi mën na ci sax am lu kawe sax lu mu amoon ci présidentielle c'est-à-dire que mën na nekk sax benn genre référendum wala mën na nekk sax genre deuxième tour présidentiel xam nga présidentiel bële bu amoon deuxième tour ce qui est sûr que nit ñi soxlawoon nañ changement ba nga xam ni ñi demoon ñëpp dañuy ñëw euh, contre le de Macky Sall. deuxième tour la xam naa bëgg naa euh, très bien <laughs> absolument et donc mën na yomb pour le régime mais ma euh, comme man Saara balaa laa dëkk. toujours dama fi bàyyi lu yomb di dem ci lu jafe <laughs> ndax ñun waa Saara Ba noonu lañ euh, ci doxee disait hmm. euh, je vais prendre le chemin le plus susceptible euh, de me détruire quelque part donc moi je préfère mettre l'accent sur les risques les risques politiques premier risque politique mooy Sénégal c'est un peuple très mature en politique hmm. pour la première fois en 2002 Sénégalais yi expérimenté benn affaire boo xam ni yaakaaruma ñu bàyyi ko. Hmm. xam nga mos naa ko neex na bàyyi naa ko saa ñu leen ci wax. <laughs> gisuloo ko fet Sénégalais yi pour la première fois élection deux mille vingt deux dañu génn ci logique ce qu'on appelle la majorité mécanique. Mmh. ou la majorité écrasante. Hmm. ñu mmh. ni président danañ la jox mais danañ la jox majorité. exécutive confortable hmm. bu nga mën a gouverner. mais duñ la jox yëpp ndax on ne met pas les œufs dans le même panier. Mmh. ce peuple là en général amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon donc sénégalais yi dafa mel ni comme si ñoom intégré nañ léegi. Mm-hmm. que ñoo fal seen président danañ ko jox jumtukaay yu mu soxla yëpp mais duñ ko jox lépp. Mm-hmm. ndax àdduna dafa xaw a ndax ñañ fa joxoon lépp gis nañ fa ñu mujjee ak ñoom première chose. deuxième chose mooy élection yi ñu nii dafa nar a nekk des élections anticipées de 2024 risque d'être le rattrapage de la présidentielle de 2024 ah waaw xam nga lu tax parce que euh, élection présidentielle yi Macky Sall da ko yàq mu ko ñi euh, mu ko yàqee d'abord mooy ñëpp pare ba mu war a siffler ñu dem mu ni jeex na. faux départ. faux départ <laughs> gars dañoo takk ñu ni dañuy daw quatre cent mètres. Mhm. ba taxaw ci starting block yi di xaar court soufflé bi. Mhm. mu ñëw taxaw ni bon léegi marathon la ah nekkatul <laughs> quatre cent mètres quoi gars yi ci waat deuxièmement aussi mu yàq ko en interne chez lui. Mhm. pour la première fois mu am candidat. ba pare xeex ko. ba tax na yow doo xam dëgg dëgg dëgg. Mhm. que vaut Amadou Ba. Mhm. Mhm. troisièmement sénégalais yi doyaloon ci Macky sàll ak lu laale Macky Sall. lijjanti nañ Macky Sall ba mu dem. ñu jëmaat yenn élection les sénégalais vont être beaucoup plus lucides maintenant. parce que ki leen merle woon ca nam fa doxalee rey ku wax mu jàpp dóor tëj rey jaay doole et cetera. nañ ko nii ñu ñooy le peuple et le peuple souverain léegi kooku dem na. Mhm. léegi nag situation bi c'est beaucoup plus calme plus apaisé sénégalais yi dem voté ji donc y a un risque bi mooy pour man. Mhm. président li mu def nii élection yi moo koy àtte. waaw décision bi mu jël tey dissoudre assemblée bi résultat élection yi moo koy àtte. lu mu koy àtte. mooy dama jàpp ne bu fekkee président am na plus de cent députés jëm kaw le président dina am benn euh, majorité écrasante disons-le comme sax mais su amee moins de cent députés mën na nekk genre camouflé cest à que Sénégal yi nañ ko wax ne ni effectivement ñoo la fal danañ la jox jumtukaay yi nga soxla yépp mhm. pour mën a gouverner mais duñu la jox saakook ak lay dem ca saaku bi yëpp. la totalité xam nga lu tax. Mhm. c'est-à-dire que dinañ la jox jumtukaay yi. ça veut que les lois ordinaires di nga koy mën di voter mais les lois organiques yi nga xam ni c'est la structure que sa pose loolu nag dañ koy seetaat. Hmm. ba nga xam ni léegi régime bi.